dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kay ñu xëyandoo ginnaaw rapport yi nga xamante ni Cour des comptes daan nañ koy génne ay musiba mabba kumba yu doy waar daal di cay nekk njiitu réew mi di président Macky Sall niki démb ci cérémonie levée des couleurs la mu xam le dina daal di indi ab commission boo xam ne dina koy exploité maanaam daal di koy càmbar ñu xoola yan lu xóor moo ci daal di nekk yéen kay gi di Rewmi Quotidien ci xalima ak Assane Samb la mu xam le mooy kàddu yooyu nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall wax na ko maanaam ñu néew ci askanu Sénégal ñoo ko daal di gëm ndax nag li nga xam ne mooy cour des comptes rapport yi ay jege ñaale Macky Sall rek nag la ñu joxar bi baaraamu tuuma te bu ñu leen jamee baaraamu tuuma la ca gën a doy waar maanaam dañuy am yeneen dombay tànk yu gën a kawe yoo xam ne maanaam moom lañ leen di takkal yéen a kaay gii de la témoin xëy daal di kay feelu ne li nga xamante ni moo am ba des est-ce que nag corps de contrôle yi jamono ji nag jotul ñoom ñëpp ñu dajale leen maanaam daal di leen di taal ndax seen njariñ ci réew mi maanaam moom bëriwu la mënuñu di def ab liggéey ba pare askan wi jàpp ne ñi leen topp te nag du mujj fenn yéen a kaay groupe Promo Consulting bi moom nag di xam ne Macky Sall ci boppam moom moo fi waxoon ne du ma protéger kenn waaye nag loolee tur lëndëm askan wi rek la am na ay institution publique ay société nationale ak ay agence yoo xamante ni dañ ko fee teg mel ni daal ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk dañu faa nekk rek di manque xaalis bi ba pare nag di amal ay marché gré a gré yoo xam ne maanaam tegewul fenn surnal bi mu ñu xamal nañu yenn institution yoo xamante ni daal nañ koy créer amul njariñ xaalisu askan wi rek lay daal di yóbbu yéen kaay gi ko Sud Quotidien ñu fekk fa Assane Dioma Ndiaye ak Seydi Gassama ñoom nag jamono jii daal ñu sàkku ay daan yu métte métte lal ko ci ndoddul ñi nga xam ne maanaam ñoo def ay looxoor te Cour des comptes joxar bi leen baaraamu tuuma journal bi di Source ñu fekk fa Moustapha Cissé Lo moom nag la mu xamle ñi nga xamante ni daal def nañu ay ñaawteef te Cour de comptes jam leen baaraamu tuuma ñooñee ñëpp daal dañoo war a wuj ji ca kanamu yoona yéen kaay gi de na gëw ma ñu wuj ji ca kanamu yoona ndax nag rapport bi mu génnee dañu ko waroon a jébbal wàllum justice waaye nag jamono joojee Macky Sall moom ay commission lay wax yéen a kaay gii di Dakar Times nag wax ne inspection générale d'État Macky Sall war na koo yebal ci port autonome bu Dakar ndax ki nga xam ne mooy njila di Ababacar Sadikh Bèye moom nag dafa daal di li nga xam ne mooy ab immeuble ba pare nag jamono ji daal di commencé tabax nag ab chaise bu yees ngir port autonome de Dakar boo xam ne ëpp na juróomi milliards journal bi jàpp ne jamono ji war nañoo xool daal njiitul port ni nga xam ne moom lay doxalee kopparu réew mi te nag lu mooy loolee amoon na nag ab bërëb boo xam ne jëndoon nañ ko lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards ngir nag def ko siège port journal bi dikk nag ci li nga xamante ni mooy récépissé borom ñaari tur yi nga xamante ni doon nañ ko fi tudd réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu ministre de l'intérieur moom nag daan na ci ubbi ab enquête maa ngi ci ubbi enquête ci fàttali nag fukki fan ak ñett ci weeru novembre waa Jamra ñoom nag joxoon nañ ki nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye liste nag góor jigéen ñi ak ñi nga xamante ni ay lesbiennes lañ jamono ji ubbi nañ si nag ab enquête journal bi di réew mi quotidien xëy nag li nga xamante ni maanaam moom mooy Macky Sall ak yi nga xam ne yëkkati na ko wax nag ci doomu réewum Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ca Chine Macky nag la mu xamle amuñu ay juntukaay ay moyens yoo xam ne war na leen a mën a rapatrier ca Wuhan journal bi daal di wax ne Macky Sall nag ma ko xam ne ni ki démb ca cérémonie levée des couleurs Vox Populi ñu fekk fa Boubacar Seye bu Horizon sans frontières la xam ne nag nee na sénégalais yëpp jël témoin en tout cas doomu a kaay gi di am xamante ni moom la ci Macky Sall joxe maanaam dafa yomb lool dafa tigoo noonu la ko journal bi waxee Vox Populi mu ñu yóbbu ñu Parcelles Assainies unité fin foofee nag dafa am benn xale boo xamante ni ñeente at kese dong rek la am maanaam ñu daal di yegg si kawam daal di kay violé ka nga xam ne nag moo def ñaawteef ga sa famille ga la nekk journal bi ñu fekk fa Serigne Mor Mbaye di ab moom nag la mu xam ne ne na Sénégal jii maanaam dafa nekk ci état d'urgence siif yi nga xamante ni ñoo ngi leen di tëddee daat nay doy ne réew ko war a daal di ndëppala yéen kaay sunu làmb ñu fekk fa raay ba mi nga xam ne mooy coordonnateur Luc Enco la mu xam ne nag combat Modou Lo Ama Baldé mënul am benn yoon fekk Luc Nicolaï ma ngi ci kaso bi